ñu ngi sant ñëpp ñu nekk ci ginnaaw nag ngeen baal ñu amuñu micro moo tax ñu yëkkati baat gi ñu leen di may rek ñu leen di ñaan nag ngeen may tuuti ndax ñuy mën a jokkoo ak presse bi ñu nekk ci ginaaw dañ leen di ñaan su ngeen bëggee waxtaan ngeen génn ci salle bi. lu ñu bëggoon waxtaane ak yéen mooy lu fi xew tey mu nekk lu ñaaw ci démocratie parce que lu fi xew ñëpp xam nañ ko tey mooy caaxaan bu ñu doon wooyee procès. yéen ñëpp gis ngeen fa xew procès ba nga xam ne ne gën a ko sax sa que ñu ne dañ koy reporté wax ji mooy lan dañu bëgg a Barthélémy Diaz tal leneen ginnaaw campagne te loolu du am man damay dama fas yéene dem campagne yi incha allah parce que dañ ma investir te campagne dafa am lu ñu yoon may ci sañ-sañ dox mbokk laata coalition Yewwi Askan Wi di am laata ñu ne Barthélémy Diaz mooy candidat coalition Yewwi Askan Wi yenn waa presse man ngeen doon suma ay seede ñaata yoon ngeen dugg suma page Facebook ngeen dugg suma page Instagram ngeen dem suma page Twitter ngeen di gis Barthélémy Diaz ngi dox mbokk ñaata yoon est que mas ngeen dégg Barthélémy Diaz ngi dox mbokk xeex am na ci wala Barthélémy Diaz ngi dox mbokk ñu ngi tiré ay lacrymogène dox naa mbokk fu nekk dox naa mbokk plateau dox naa mbokk Médina dox naa mbokk Grand Dakar ku lim juum dox naa mbokk fu nekk Wakaam dugg naa fu nekk biir Dakar laata coalition Yewwi Askan Wi di am loolu am na wala amut am na lu tax kon tey nag ñu ne ma man Barthélémy Dias aw ma droit dem defi dem defi dox mbok lu tax fuñ ko teg ñoom lu ñu namm mooy lan mooy Barthélémy Dias tal leneen ginnaaw campagne fa ngeen naxee nag seen bopp parce que dama ne kilifa buy fooyee xelam kooku na ko yàlla may xolu wante man damaa fas yéene wul fooyee suma xel te lu ma fas yéene def mooy lu ñëpp di xaar ci man ci candidat mooy dem seeti Dakar ci marché yi ci seen kër yi ci grand place yi ci jumaa yi ci jàkk yi ci église yi ci café yi waxtaan ak ñoom saafonte ak ñoom jaxasoo ak ñoom sakku ci ñoom ay ñaan sakku ci ñoom ndimbal sakku ci ñoom ñu jàppale coalition bii bu ñuy wooyee coalition Yewwi Askan Wi parce que nooteel bu ñuy wooyee Sénégal nooteel bu ñuy woote Sénégal yebeel bu ñuy woote Sénégal ak jaay doole bu ñuy woote Sénégal dafa doy te dafa nar dakk kon nag yéen ñëpp weekend bi gis ngeen fii ku ñuy woowee Abdoulaye Diouf Sarr te kenn musuma dëgg ma wax lu ñaaw ci moom mu nekk ministre de la santé nekk suma naataango di nekk maire Yoff nekk suma mag ma respecté ko te moom xam na ci dara yéen ñëpp gis ngeen fii Abdoulaye Diouf Sarr nekk ci mbedd yi yor ay camion yor ay sonorisation te yoon may ko sañ-sañ jamono yi mu am sonorisation muy nekk di jaay coalition benn bokk ngeen jégal ma bàkkaar ñuy dox seen dox préfet ngi di gis waxut commissaire central gis nañ waxut commissaire sûreté urbaine gis nañ waxut commissaire dik gis nañ waxut man nag làqatuwuma nëbbatuwuma démb laa teg suma page Facebook ma ne man suba incha allah su ci yàlla àndee damaa fas yéene dem defi lu ñuy woowee dox mbokk mooy tubaab di woowee proximité damaa fas yéene dem plateau. su ma fa génnee damay dem Médina dox mbokk bi dama koy commencé 11h su ma duggee plateau damay commencé Petersen ci garage bi dem ci ambulant yi waxtaan ak ñoom jox leen lii lii mooy carton invitation ci meetingu investiture bu ñuy am ci dimanche bi le 21 novembre ci ñeenti waxtu ci ngoon fële ci commune Grand Yoff ci terrain xaar yàlla bu nekk en face su Walfadjri damay laajte tey coalition Yewwi Askan Wi affiché nañ liste yëpp suñu bos baax na man maay candidat Dakar constitution du Sénégal mooy suñu alxuraan mooy suñu bible moo wax képp ku yëngatu ci politique yoon may na la nga mën a dem ci mbooloo ci nga ngay utiliser kàddu wala ngay utiliser lu ñuy woy image wala ngay utiliser ay bind pour mën a waxtaan ak askan wi ma génn suma kër ay booru 11h dugg suma oto di dem live ma nekkuma direct suma page Facebook mbooloo àndul ak man ñuy ànd ak man bëccëg ak guddi te yor suma kaaraange yor ñaari oto benn bi di jiitu keneen beneen oto bi ma topp ci ginnaaw ma nekk suma biir commune ma taxaw feu rouge score police ñëw te ma jaay ma doole. policier bi ne ma amoo droit avancé doo dem ma ne lu tax du ma dem mu ne ma yow munoo dem du ma la bàyyi nga dem da nga am cortège ma ne ko sëriñ bi ma ne ko yow commissaire de police nga yow da nga jàng école ma ne ko yow commissaire de police day def lu ñuy woye université te day jàng lu ñuy woye droit te man dama am ay commissaire de police yu bëri yi nga xam ne ni ay xarit lañu ci man ma ne lu ngay def nii yoon mayu la ko ci sañ-sañ yaa ngi may jaay doole mu ne ma xaw ma dem lay jaay doole xaw ma jaay ma doole wante yow cortège nga yor ma ne ko cortège bu amul gyrophare cortège bu amul sirène cortège bu taalul sax phare cortège bu taxaw feu rouge nga ñëw di ñu jaay doole. mu ne ma cortège bi mënul avancer ma ne ko comme cortège bi mënul avancer te man yàlla baaxee na ma ñaari tànk man ma dox rek waa ji xataraayu mel ni gune bu ndaw ma ne ko yow mi commissaire nga yow. yow yow yow commissaire nga yow xawma kan wante yow il faut ñu wax ak ñu ngeen xam ne ni ñoom ñoo ilif police parce que yow yow dama ne yow ñoruñu la sax dënk sax mbalit bëgg la dënk commissariat waaw parce que man commissaire yàgg na ma arrêté mais commissaire da lay arrêté avec ce qu'on appelle l'élégance républicaine kenn mësuma gis may fippu Barthélémy Diaz vous êtes en état d'arrestation topp ñu ma topp leen parce que man xam naa suma ay droit waaw commissaire bi nekk ci mbedd bi mel ni xale bu ndaw bi nga xam ne ni dañu siif ci moom tàngal di xataraayu jël ma dugal ma ci oto bi yóbbu ma commissariat jëppal jël ma nag commissariat jëppal sandi ma ci gri waaw te moom te moom ay kilifaam ñu ngi may dégg ñu nga xam ne ni

commissariat jëppal bi moom mooy couvrir suma commune damay jël di ma sànni dans le violent te loolu doyul j'ai décidé de porter plainte contre ce commissaire jël suma ñaari jigéen jël leen tëj leen ci violon bi di leen di dóor ay arrêt ak di leen di këdd yaa ñàkk a jom yow yaa ñàkk tu ne non pas la police parce que police du Sénégal police Sénégal est une police exemplaire en Afrique ñëpp xam nañ ko tout le monde sait comment fonctionne la police dans certains états africains ici ñëpp xam nañ leen yow tey man je revendique mon amitié avec certains commissaires de police avec fierté parce que dafa am jaar-jaar ñoom mais commissaire de police bii laa wax en tant que maire de Mermoz Sacré-Cœur du ma nanguti muy nekk suma interlocuteur parce que man dama fonk suma bopp et je considère que quand le respect n'est plus servi il faut que ce commissaire police il est envers ma personne, mais envers l'institution qui est la police nationale. C'est du jamais vu. Un commissaire zélé qui se donne en spectacle. dafa ñaaw ngay jël ay jigéen Malvina ñëpp xam nañ ko. muy nekk di ko këdd di ko pes di ko coup de pied loolu góor góor sax laa wax góor du ko def. jël suma beneen jigéen bu ñëwee Binta di ko këdd di ko pes ndax si doy nag mu sàcc suma portable. voilà dama ne dama ne loolu yëpp amul solo avocat yi dañ def seen liggéey te commissaire bi dama ko bëgg a xamal dara nguur gi day jeex te su jeexee dama ne su jeexee yow commissaire Mballo laa wax si les autorités policières de ce pays ce pays on a pratiqué tout le monde dans ce pays tout le Sénégal nous connaît tous les commissaires de ce pays nous connaissent musuñu leen manqué respect musuñu manqué respect wante nag ku ñàkk jom ku ñàkk a fulla ku ñàkk a ñu wax ko parce que loolu moo am maintenant nag dama ne suba soretul suba soretul comme nee na moom day fëgg dënam nee na moom góor la ba suba tey dama doon génn suma kër doon dem ci jàmm ak salaam Petersen ñu jaay ma doole suba kenn du ma jaay doole loolu su meen ko waxee rek na ngeen ko takk téere maintenant nag man dama bëgg wax ji leer waxuma ak waa BIP waxuma ak ñeneen dama ne commissaire Jëppal laay waxal suba na suba na defaat lu mu def tey mu xool damay xaar ba suba commissaire Jëppal defaat lu mu def tey dina xam est-ce que fii góor a fi dëkk wala jaaxu fi dëkk. dama ne damay insister rek dama ne na ngeen ma damay ñaan képp ku ma bëgg gunge suba. képp ku ma bëgg jàppale suba dama lay jox rendez-vous Petersen. Petersen bi nag plateau dama bëgg wax di leer deew ma place indépendance deew ma ponti su ma mbokk yi nekk marché alizé maa ngi leen di jógulu xam naa nam ma ngeen ma gis mais moonte mënu ma fa egg ndax arrêté Ousmane Ngom te arrêté boobu dafa illégal wante man bëgguma tooñ wante dinaa ñëw Petersen garage garage la dinaa dem salle de vente marché la dinaa dugg Sandaga marché la dinaa dem kër sëriñ bi marché la dinaa dugg Rebeuss dem seeti suma mbokk yi su ma fa génnee damaa fas yéene dem Médina je suis candidat à la mairie de Dakar d'une coalition la liste a été validée la constitution du Sénégal moo ma permettre may mën a di jokkoo askan wi à travers la plume la parole et l'image lii kese laay distribuer aw ma gànnaay lii rek laay distribuer ana ndeyu kii di Diouf Sarr mën a toog ci biir dëkk bi di doxatu ak ak ak sonorisation kenn du ko téye kenn di ko budul xatal man may génn di dem distribuer sama prospectus ñu ne ma du fi am loolu mooy lan. merci merci. kon nag dama ne dama xam ne ni tey peut-être dañ leen déranger daanaka dañ doon dem wala di dikk ñu daal di. galgal seen dem ak dikk ndax mel na manifestation ñu ngeen di jégalu ñu ngi jaajëfee ndaw ñu ngeen xam ne nii ñoom ñoo dëkk fii bii Baobab seen taxawaay ñu ngi gërëm jigéen ñi yéen de yéen tamit waa presse bi ñu ngeen di gërëm leen di sant wante tamit di gërëm di sant tamit la coalition Yewwi Askan Wi département de Dakar parce que luñ ñu bëgg jaay ça ne peut continuer